هو القرآن والفرقان إليه تنصت الأكوان وفيه تعطر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة صدق الله العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi ñuy seetaan di ñu déglu ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen balu àq di leen baal àq di amaat mbégte ak kontaante ñëwaat ak yéen si yenn tafsirul alquranul karim comme niñ koy defee ci weeru koor bi bis bu nekk ci waxtu bi xam ngeen ni nag ñu ngi ci suñu fukkeelu fan ak juróom-benn ci tey tey mooy suñu fukkeelu fan ak juróom-benn ci koor gi yàlla ñu yàlla def ñu mottali ko ak jàmm comme ni nga xamante ni mën lañ ko commencé ak jàmm tey xam ngeen ni ñu ngi woon ci sootul mudassir mudassir waxoon nañ leen bee passé ne yàlla subhanahu wa taala mi ngi ci wax ak yenent bi salallahu alayhi wa sallam jugloo ko pour mu jóg dem waaraate ji jaamu yàlla ak yu mel noonu tontu si nag ki nga xamante ni mooy walid ibnu mughira moom mi nga xam ne moo dem xalaat ba mu neex ko mu daal di mu daal di weddi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne li mu wax du waxu nit waaye ay njabar la waaye lii ay wax la yoo xamante ni du waxu yàlla kon waaye waxu nit la moom la ñuy eggale nag tey saar bi incha allah yàlla mu ne kallaa wal qamar mu ne jàjj wal qamar maa ngi giñ ci weer wi wal layli id adbara maa ngi giñ ci guddi su fekkente ne wane na ginnaaw yàlla dafa giñ ci weer daal di giñ ci li nga xamante ni moom mooy guddi su fekkee guddi gi jeex na ba wane ginnaaw mu ne was subuhi isa asfara maa ngi giñ ci suba su fekkente ne leer na ba feeñ fenk na suba gi fenk na ba weer mu ne innaha la ihdal kubar mu ne lii nga xamante ne nii mooy yi nga xam ne mooy yi ma leen wax nii mu ne bokk na ci benn ci li nga xamante ni mooy balaa yi dal doomu aadama yàlla nañ ci yàlla musal innaha la ihdal kubar lii day ma leen wax nii muy safara seeg la may jéngee ak yooyu la ihdal kubar benn la ci yu rëy yi nga xamante ne moom mooy am yowmal xiyaam ndax lan ma tudd ko nadiran lil bashar dama koo def ngir waaraate ñeel ñi nga xamante ni ñooy nit ñi dama koo def ngir waaraate ak xuppaate ñeel jaam ñi ndax yàlla bëggul lakk kenn bu sañoon wala bu si coobaree ci coobareem sax ñëpp mën nañoo gëm yàlla waaye daf ñuy def imtixaan daf ñuy naf nattu di xool ba xam dinañ ko gëm wala duñ ko gëm en tout cas lu mun a xew mooy nee na lii ma wax nii dama ko wax ngir lan nadiral lil bashar ma def ko mu nekk xuppaate ñeel doomu aadama yi ndax nga xam ne ñu duñu mën a wedd wala duñu wedd yàlla yàlla mu ne liman shaa minkum ay yataqaddama aw yata axar ku mu soob ci yéen nag dama ko def mu ñeel képp koo xam ni soob na leen yéen doomu aadama yi nga ku koy xam ne dafa bëgg a jiitu wala dafa bëgg a nekk si ginnaaw jiitu mooy lan aw ci yoon bu baax bi dem àjjana nekk ci ginnaaw mooy lan aw ci yoon bu bon bi dem fi nga xamante ne moom mooy safara yàlla nañ ci yàlla musal yàlla mu ne kullu nafsin bi maa kasabat rahina bakkan bu nekk la mu liggéey loolu la daf koo tayle boppam tey jii boo amoon benn soxla te amoo loo ko faje bu la neexee da nga jël sa benn matériel nga dem jox ko nit ku am xaalis na ko am ma tayle la ko nga jox ma lii après dinaa la ko delloo ñun nag suñu bakkan yii jëf yii jëf fii ci àdduna moom rek dañ koo dafa mel ne dañ koo tay la yàlla subhanahu wa taala wala dañ koo tay la ci suñu biir bàmmeel bu ñu demee dañ ko fay fekk ndax ñun ñoo ko fa yóbbu woon moo tax yàlla ne kullu nafsin bakkan bu nekk bi maa kasabat ci li nga xam ne moom la fàggu muy lu baax wala muy lu bon marhuunatu daf ko tayle rek su baaxee da moo koy jël moo koy moom su bonee moo koy jëlaat moo koy moom yàlla mu ne ba mu des ñan nag illaa asxaabal yamin ba mu des ñi nga xam ne ñooy waa ndeyjoor xam ngeen ne yowmal xiyaam bu ñu dekkee ñi nga xamante ni seen téere daf leen dikkee ndeyjoor ñoom xam nañ ne ñoom sa àjjana lañ jëm waaye ñi seen téere dikkee càmmoñ ñoom xam nañ ne safara lañ jëm moo tax yàlla tuddee waa àjjana asxaabal yamin mu ne illaa asxaabal yamin ba mu des ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa ndeyjoor ñi féete ndeyjoor mu ne ñooñu fii jannaati yatasaaluun ñoom day ñi ngi ci nekk ci biir ay àjjana di laajante dañuy nekk bu ñu nekkee ci biir àjjana am na ñoo xam ne gisuñu leen woon ñoom nag ñuy laajante nag ñan la ñuy laaj anil mujrimiina kàccoor yi xam nga dañ leen di laaj maa salakakum anil mujrimiina ñuy laaj kàccoor yi naan leen maa salakakum fii saqar lan moo leen dugal ci safara si nga xamante ne moom mooy safara saqar ana lan moo leen fi dugal lan moo leen fi tàbbal saqar metti na saqar tàng na saqar nekk na loo xamante ne nii lu lu jéggi daya la ci mettit ak tàngaay kon nan ngeen def ba dugg ci safara si waaye mbokk yi tontu bi waa safara di tontu ah boobu war nañ koo seetaat balaa ñu dem yowmal xiyaam ñu naan ñu maasalakum fi saqar wala iyaas billah tontu boobu képp kuy jullit war nga koo xool moytu ko li yóbbu waa safara li leen dugal saqar saqar muy safara soo xam ne bu metti la lan moo leen fa dugal tontu bii nga xamante ni ñoom la ñuy tontu war nañ koo bàyyi xel bu baax a baax a baax ba duñ fa dugg mooy lan ba ñu leen leen masalakum fi saqar qaalu lam naku minal musallin ñu ne ndax ñun daawuñu julli allahu akbar mbokk julli ci ku dul julli day kon saqar mooy sa kër ëllëg yowmal xiyaam te saqar benn kër la ci këru safara yi te xam ngeen ni safara ni ko yàlla bindee ay kàmb la xam nga àjjana ay étage la jëm ca kaw mais safara nag ay kàmb la jëm ci suuf te saqar benn kàmb la ci kàmb googu am na ñoo xam ne bu ñu leen laajtee waaye yow ana diw man gisuma ko fii si àjjana ñu ne ma ñu ne leen parce que lan wala lan moo leen dugal fii ngeen nekk ci safara si ñu ne lam nakku minal musallin ñun nekkuñu woon di julli te julli mbokk yi amul kenn ku ko yàlla teggil xanaa ko wéradi waaye képp koo xam ne da nga ne jullit nga képp koo xam ne da nga ne yow da nga da nga majeur nekk jullit yàlla teggil la julli te wàccewu la ko da nga ko war a def soo ko deful bu la yàlla jéggalul mën ngaa bokk ci waa saqar ñu ne lam naku minal musallin ñu ne daawuñu julli waaye yemuñu foofu de walam naku nutimul miskiin daawuñu leel ñi nga xamante ne ñoom ñooy miskiin yi ñu daal bu ñu amaan dara dañ koy lekk naan ko foci waaye duñu jox ku xiif duñ ko may mu lekk ku mar duñ ko may mu naan ñun daal ñun suñu alal moom dañ ko daan fowee rek wa kunna naxuudu ma alxaaidiin dañ naan bokkoon di fo ànd ak ñuy fo fokkat yi ñuy xuus rek lu ñu def ñu def ko lu ñu wax ñu wax ko lu ñu xewal ñu xewal ko duñu xool ndax lii neex na yàlla wala neexul yàlla duñu xool ndax yàlla gërëm na lii wala gërëm ko ñun daal wa kunna naxuudu ma al xaaidin dañ doon fo rek ànd ak ñi nga xamante ne nii mooy fokkat yi wa kunna nukaddibu bi yawmi diin te dañoo weddi woon ni bis penc amul te mbokk yi weddi bis penc nekkul ni dangay weddi rek ne bis penc am na déedéet gis nga bis penc weddi ko bokk na si nga bañ a def li la yàlla sant parce que yow bu la leeroon ni lii la la yàlla sant soo bañee soo ko bañee def dalay lakk xam nga kon doo ko def mais weddi bis penc mooy lànk bañ a def li nga xamante ne noonu moom la la yàlla sant mu ne wa kunnaa naxuudu bi wa kunnaa nukaddibu bi yawmi diin ba pare ñun dañ daan weddi li nga xamante ne nii moom mooy bis penc ba pare dañoo nekkoon ñoo xamante ne nii weddi nañ lii lépp xataa ataanal yaqiin ba dee dikkal ñu al yaqiin hu al mawt yaqiin mooy dee wax bu ñëwee rek day leer nañ ñi biir nga xam ne nag li la yàlla santoon nga bañ koo def tey ñëw na dee ñëw na waaye nag mbokk yi li metti mooy yàlla nee na dee googu bu leen dikkalee fama tanfaahum shafaatu shaafiin su fekkee tuubuñu si ñàkk julli gi tuubuñu si ñàkk joxe ñam gi ñuy ñàkk joxe ñam lekk ba suur dem tuuri ci mbedd ma sa sa sa mbokkum jullit xiif su fekkee loolu lépp tuubuñu si ba dee ba pare ku foo ñu ànd ak yow lu xew ñu ànd ak moom xewandoog moom moo xam lu bon la moo xam lu baax la moo xam lu mu mënti doon du ñu seet li ci yàlla bëgg lu ci yàlla bañ lu xew rek ñu nekk ci ba dee dikkal leen yàlla mu ne fa maataan fahum shafaatu shafiin mu ne rammuk aji ramm yi du leen jariñ te xam ngeen ne yowmal xiyaam yàlla dafay digal yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ramm aw xeetam dafay digal ñu baax ñi mu ñu ramm malaaka yi tamit dañuy ramm gaa yi yàlla yu baax yi dañuy ramm waaye nag ñooñu dey nga xam ne ñoo doon ñoo daawul julli fii ci àdduna ñoo daawul leele ñam ñoo daan def lu leen neex ñooñu rammkat yi li ñuy baax baax baax duñ leen ramm fama tanfa'uhum la yàlla wax du leen jëriñ shafaatu shafiina rammuk rammkat yi waaye yàlla mu ne fama lahum an tadkirati muridin waaye ñii lan moo leen dal ba bu ñuy waaraate ñu dëddu wane ginnaaw dañu nangoo déglu li nga xamante ne moom mooy waaraate bi ka annahum humurum mustamfira farat min xaswara mu ne dañoo mel ne mbaam gis nga boo demee ci àll bi mbaam yu xonq yooyu bari bu ñu séenee gaynde guy ñëw ni ñuy dawee tasaaroo yàlla mu ne boo leen di waar noonu la ñuy mel waaye bal yuridu kullu imri'in minhum ay yu'ta suhufan munashshara kenn ku nekk si ñoom waa Màkka ñoom li ñu bëggoon ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu fekkee li ngay woote dëgg la sa yàlla ji ngay woote woo bu fekkee mooy yàlla te dëgg la léegi nag kenn ku nekk yàlla xam na turam comme que moo ñu bind xam na adresse am na jël li nga xamante ne mooy téere mu yónnee ko si ñun kenn ku nekk na yónni si moom téere jox ko ne yow mi diw man yàlla man maa wax nangam ak nangam ak nangam moo tax yàlla mu ne kullu imri'in bal yuridu kullu imri'in minhum ay yu'ta suhufan munashshara kenn ku nekk si ñoom dafa bëgg ñu jox la téere boo xam ne dañ leen koy tasaare yàlla ne kallaa déedéet loolu moom du am balaa yaxaafuuna al axira ñoom daal li fi nekk mooy ragaluñu yowmal xiyaam tiituñu ti na yowmal xiyaam dina ñëw kallaa innahu tazkira yàlla ne lii ma leen waxal nii lépp fàttali la comme ni mu ko waxee woon ci sotul mu gàmmil bi li tax ma leen di wax lii dama leen di fàttali pour bañ li daloon ñee dal leen waaye nag fa man shaa dakara ku mu neex fàttaliku ku mu neex waaru ci li yàlla di wax ak li muy tere wa ma yadkuruuna illa an yashaa allahu huwa ahlu taqwa wa ahlu almaghfira yàlla mu ne waaye nag du ngeen fàttaliku mukk loolu dafa soob yàlla subhanahu wa taala soo bëggee fàttaliku da ngay ñaan yàlla mu di la may ngay fàttaliku li nga xamante ni moom lay wax ak moom lay digle ci coobareem moom yàlla rek si la nit ñi di waaroo ci coobareem moom yàlla si la nit ñi di defee lu baax waaye moom yàlla huwa ahlu taqwa moom mooy ki nga xamante ni mooy yeyoo ñu ragal ko moom rek moo yeyoo ci moom rek la jaadu ñu ragal ko moom yàlla waaye wa ahlul maghfira yàlla rek mooy ki nga xamante ni moo yeyoo njéggal moom rek mooy jéggale mooy jéggal nit ñi ci seeni bàkkaar mbokk jullit yi ñi ngi jéggaluwaat yàlla subhanahu wa taala di leen jéggalu di leen baluwaat àq bu baax di kontaan lool ci contribution yi am solo yi ak ñaan yi di ñaan yàlla subhanahu wa taala defal ñu dégg ak topp defal leen ko defal ko mbooleem jullit suñu tafsiru tay bi nag ñi nga ñi nga xamante ni moom lañ ko tuddee mooy waa Chamsudine Chamsudine mooy école bi nga xam ne fa la ñuy jàngalee si njiitalu Ousmane Mbaye monsieur Lamine monsieur bi nga xamante ni mooy monsieur Gaye Waalo ak ki nga xamante ni mooy monsieur Sagna ak monsieur Sow monsieur Sonko bépp monsieur bu fay jàngale rek Oustaz Abdou Ahad bépp monsieur bu fay jàngale ak bépp ustaas bu fay jàngale rek yow la ñu may tafsiru tay bi di ñaan yàlla defal ñu dégg ak topp wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh